depuis daaw. depuis daaw. sama passeport diplomatique jeex na. passeport am diplomatique yam jeex na. bëgg naa ñu renouveler ko. bëgg na ñu defaraatal ko ko. waroon naa dem France. waroon na dem tukki France dem yeneen réew. ba ci Amérique. mënaguma dem ba léegi renouveler guñ ko defaraguñ ko. dama ni woon après gàmm gi. dana woon après mawlud bi. dama jël sama passeport simple dem ci. dem ci passeport simple. boo gisee ma leen wax lii. boo gisee mu leen di wax lii bu ma leen gisee bu leen gisee lu ma neex lu ko neex naa leen ko wax naa leen ko wax lu ma naqari naa leen ko wax dana que yéenay nopp président yéenay nopp président tànk président yéenay tànk monsieur le président président na fu ngeen teg monsieur le président la République fu ma teg président moom tamit xam ngeen la République hmm. la hmm. mais suñu mag nga te da nga am njaboot hmm. dama am na loo xam ne dinañ dugg ñu waxtaane ko mhm. mais mbiru passeport moom mhm. yooyu bu ko waxati sax xamul tax <laughs> parce que boo yónnee kii tamit parce que am na loo xam ne foog ñu wax ko ci mbooloo mhm. soo yónnee kii ne ko demal ci Abdou Mbow ne ko mu wuy si ma balaa ngaa tëdd ci lal gis ma donc loolu aussi bu amatee ca lu wax parce que loolu ay détails la donc mën nañ dem ñu waxtaan incha